tribunal euh, rejeté la euh, euh, le le recours de l' agent judiciaire de l' état nee na moom procureur bi li mu wax mooy bi mu dégloo ñëpp gis na ne état bi amul benn argument bu mu fi indi kon li may sàkku mooy tribunal bi rejeté li nga xam mooy càkkuteefu état bi bu ko defee ñu delloo Ousmane Sonko ci fichier électoral bi jox ko ay fiche de parrainage bu 2024 tey vingt sénégalais yi at. loolu mooy mais mais monsieur la mobilisation tey. est-ce que amoo mbetteel parce que tey ñu ngi doon xaarandi ni ngeen ko wootee woon rek sénégalais yi génn un peu partout dans le Sénégal mais notamment ici Dakar. loolu mënaguma ci évaluer parce que man maa ngi ci tribunal parce que tribunal bi tamit non tribunal bi boo ngeen xoolee euh, mber yi euh, teg nañ fi seen takk der depuis ca sept kon man loolu mënu ma ko évaluer te am nañ ñoo xam ñoo nekkoon suñuy superviseur donc mënu ma taxaw fii nekk ci biir salle bi di xam li xew ci biti loolu mënaguma cee wax. daañ def réunion évaluer ko pour xool fan lañ jëm mais li mën a jàpp daal mooy président Macky Sall duñ ko bàyyi muy jaay doole réew mi moom donn ko ci kenn ba war ñoo teg foo ba war ñoo jaay doole boo am si moom ci sañ-sañu boppam rek ak ay loi boppam la ko teg ñun daal li ñu gëm mooy tribunal bi la ñuy xaar xaar mu àtte ci dëkk su àttee ci dëkk Sénégal ñooy te am na avocat yu ko fàttali ne leen yéen cour bi jàmmi Sénégal mi ngi seen loxo président tribunal bi Ba fàttali naa ko li waajuru góoram defoon yaa 35 fanweeri at ak juróom ci ginnaaw baayam tudd Ali Siré Ba ñu saisir ko mu nekk le président de la cour de sûreté de l'État booba yéen ñu bëri ñi yéen ñi xam naa juddoogu leen booba mooy Rome élection 88 yi jàll réew mi tàkk ñu bëri ñàkk seen bakkan réew mi tàkk booba ñu àndoon ak Ablaye Wade muy ñun euh, ñu nekk tout tànk nekk ay élèves seconde ki première ñun on était engagé ñun ñoo ñëw fii Ndakaaru dëbb dëkk bi biñ dëbbee dëkk bi Abdou Diouf ne léegi Abdoulaye Wade mii xale yi mu àndal nii buñ fi màggee musiba dina am doot fi nekk candidat dem def ab requête à la cour de sûreté de l'État moom waajuram wu góor moom moom mii tey euh, Siré Ali Ba daan ne Abdou Diouf man du ma jël décision boo xam ne damay daan Abdoulaye Wade lu mat juróomi at parce que su ma ko daanee lu mat juróomi at jeex na dootuma nekkati ilaa yow mi din candidat Sénégal boobu foofu la loi bi toll mu ne moom day jël responsabilité dina am ñun du laal la déchéance maanaam l'éligibilité de Ablaye Wade du ko laal l'éligibilité de Ablaye Wade du ko laal mu ne parce que Ablaye Wade Sénégal yëpp moom lañ bëgg su ko laalee musiba mën na koo jur ci réew mu daal jël responsabilité am di na ay daan yoo mu daan ñu àndoon ak Ablaye Wade ñu téye Ablaye Wade def lu leen neex mais téewul kenn laalul kenn laalul euh, li euh, éligibilité wu Ablaye Wade cest à mu mën a nekkaat candidat kenn laalu ko lool moo tax en 93 mu nekkaat candidat maintenant nag loolu la ñuy xaar ci doomam ji nga xam ne tey Sénégal gépp moom la ñuy déglu Sénégal gépp tous les Sénégalais restent suspendus à la décision du président de la Cour suprême kon moom ba mu ngir yàlla ba mu tas yaakaaru Sénégalais parce que ci taarix ni ñuy ni ñuy limee waay waajuram wu góor di xool taxawaay bu rafet ba mu amoon moom dafa war a ñaan loolu pour ñu koy wax seen i doom ñu koy wax ay sëtam ëllëg ni ko sa waajuru góor bañ demee ba réew mi jaxasoo président Macky Sall bëgg a utiliser justice moom moo taxaw ne lii du fi am kon nag loolu la ñuy xaar ci moom bu ko defee décision boobu dalal xelu Sénégalais yëpp loolu jàpp nañ bi ko defee jàpp dina am.